motax am di tag kenen mhm. wallahi ñak xam la mhm. waye ñak foog ni ni ñe la ko tek tamit ñak xam la mhm. ciun ku am yalla la jox waye ku ñak fa tabarakallah yalla la ciun al jabbar moy yalla moy nota kon bi ciun yalla mo lay may nord la ba ngay dépenser sa alal yalla mo lay xañ nord la ba nga nangu xañ gi yalla mo lay tek febar nord la ba nga nangu febar bi coon ni dana ami milliard fa tabaarakallaahu feebar mënu ko jënd feebar mënta jug ci lal bi ay milliards mënu ko fay pour jug yàlla sirru bi mu koy nootee ba mu tëdd ci kaw lal boobu noonu aljabbaaru la kon yàlla mooy nawtaakan bi waaye cuun yàlla mooy jàng damm-damm yi mooy solution à tous yàlla la baraaloo bi ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam jala jalaaloo azza kamaaluhu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 moy borom suuf juróom-ñaar wallahi ma fi samawati wa fil ardi hmm. asaman juróom-ñaar la fa nek yalla ko mom hmm. waye suuf juróom-ñaar tamit la fa nek fa tabarakallahu yalla ko mom hmm. kon ku am soxla taral la sa loxo yi ñaan yalla yalla na yàlla sutura ci amin ya rabbal amiin ya rabbal aljabaaru poids mystique am valeur numérique gam chiffre 206 la 206 206 tun waye al jabar cuun bu bari njëriñ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 cuun fa tabaarakallaahu lii ku ko def mm-hmm. boo ci gisul résultat insha allah rabbi jël sama moo nga woo ma siru bu am doole la mm-hmm. muy julli bu nekk nga def yaa jëbbaaru deux cent six mm-hmm. ñaan yàlla génn la ci ñàkk insha allahu rabbi boo ñàkkoon bay yelwaan danga nga bokk ci ñi ko mbay saraxe te cuun nag magasin yàlla ya la ca nekk cay xéwal lépp pour umar naa muhammad sallallahu alayhi yàlla mooy razaaxu yàlla mooy fataaxu wallaahi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 كل بندل الله جبار لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومي 313 فوا تون فتبارك الله وجل نخ مي تانغال كاريت تون ديكو ديو فاي ميت ان شاء الله ربي يالا ميغا خامني موم ريك مو مانا ويرال دا تون الجبار تربو ام دوله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 ndax wala kad wala xadd karamna bani aadama xana xama bu yàlla tere doomu aadama sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ciun teranga yi ñong ko amé ci barke sayidina Muhammad Cheikh Bamba lim am ci barke yoonte bi la ko amee Xaadim Rasul c'est sayyid haji malik lim am ci barke yoonte bi la ko amee Mawda Mawlana Cheikh ibrahim Niass fa tabarakallahu lim am ci barke yoonte bi la ciun bihi zil mulki mulka maatamana mom nga xamni fa tabarakallahu Souleymane borom daraja ja cun fa tabaarakallaahu nga xam ne moo waxoon rabbi habli mulkan laa yan bàyyi li ahad min baadi innaka antal wahaabu mhm. yàlla may ma nguur goo xam dootoo ko may kenn sama ginnaaw mhm. lam am xéwale ma ngi ko amee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom fa lamaara ay naaw akbar na waqataana aydihunna muy yusufa borom taar ba mhm.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 mbaa nga jëm gànnaar mbaa nga jëm bët saalum kon fa tabaarakallaahu ñeenti yi rek mm-hmm. bu mu ci mënti doon fu soxla ba mën a nekk ci mm-hmm. ñeenti xibla yi mm-hmm. inchaa allahu rabbi boo defee yaa jabbaaru 824 gannaaw ba nga defee fatiha benn yoon la astaghfirullah 70 salaatu alal nabi 12 nga def yaa jabbaaru 824 ba pare ñaan sa aajo waaye nag tëjee ko fa tabaarakallaahu vingt et salaatu ala nabi mhm. def ko addiya sayyidina Muhammad ndax mbir yi mi ngi rek lay woo ci barke yonent bi rasulullah mooy solution bi mhm. waaye cuun yaa jabaaru mhm. ak garaaw tële mi ngi ci biir kër yi néegi kawlali xuloo yi fa tabaarakallaahu yaa jabaaru moo ci mën dara oh. cuun képp koo xam ne santiir nga ni inchaa allahu rabbi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 boo daan laal soxna si doo yëg dara mm. boo laalee soxna si di nga yëg dara mm. waaye boo ko mënul mm. ci wérd nga xam ne da ngaa bëgg fa tabaarakallaa moom kàttan immédiat da nga jël yaa jabaaru trois cent treize boole koog meewu gëléem soo ko bind bu dee bind bi nag da ngay wut ku ko mën a bindilee lem baax na bu ko amul nga am ku la ko bindilee safron baax na waaye boo paree nga xooj ko kut meewu gëléem def ci